mais yene yéenay fay wa CNG mais normalement war ngeen meuna wax li len nakari tay ji people view bi nek fi sen avantage la war na mbeur war to tok semence war am war nga meuna am yow instant yi trois combats ci année bi. non man mo wad deug yalla dama la wax rek CNG ma ngi leen di ñaanal ñu yag vite wër <laughs> barki mam Serafal aw ma leneen lu wax CNG. non CNG defar nañ làmb quoi. Mhm. mais defar nañ làmb bu baax baax a baax parce que yi ci amoon yëpp amatu ci mais man lenn rek laa bëgg mooy maanaam li war ci làmb ñu bàyyi gars yi di ko def. waaw mooy budget li ñuy xañ gaay yi. Mhm. imaginel Ama Balde bu yor bitéelam rek sotteeku yaram bi fudd. ah mhm. loolu kii la quoi sarmantu làmb la dafa bokk ci làmb en même temps dafay dundal làmb. parce que loolu dafa bokk ci sport quoi. mais buñ ko dindee ci làmb ji rek ñu ngi dind lu bëri ci làmb yaa ngi dégg parce ñun làmb foo la ak kaf ak ree fecc mu neex bëre lu neex xeex lu neex daan lu neex dem ñibbi looloo fa am mais kon li war ci làmb yëpp nañ bàyyi gars yi di ko def parce que ñun ci moment boobu lañ toll quoi moment wane suñu bopp te dafa am ñoo xamante ni tey buñ ne diwee bëre xam nga lan moo lañ dang kumba fecc ma maama la mi ne bëri ak Siteu rek war a dugg stade dongali laay looloo ne ci làmb leneen néew ci làmb lu loolu. mais xanaa ñu may tuus bi. <laughs> non tuus lan. am na lu ma ko mayoon. Hmm, mais may ñun waa seen kàddu. non seen kàddu naa lu ma leen may sax. Hmm. mais tey sama xarit dafay nekk muy amee cuub. waaw amee cuub suma xarit la moo ko waali de ak Mor VIP. Hmm. suma xarit Ndiaga mu ngi fi Adama Diallo booba fi Taali. ñun ñëpp a ngi fi. Mhm. mais kii mooy borom paracakin. Uh-huh. waaw te xam nga lu ne ci man yëpp kii ko def ci man. Mhm. amee coo ngi nii doomu yaay waali dë mhm. te lu ne lu ne ngi ci paracakin maa ngi dégg ba ba sa naan ni moo gën baax bi curuxi curuxi booy ñaar. <laughs> Ah. boo ñaan sàcc la rek. Hmm. mu naan curuxu curuxi ñu ne ko loo génne mu ne curuxu curuxu. curuxu curuxu ko moom. curuxu curuxu du yëfu jàmbur. <laughs> curuxu curuxun pasaaxin ngin curuxu curuxi tan mbin pasaaxin ngin nga naan reekin <laughs> boo ñaan nee ma ko moom. Ah. <laughs> na rek la rek. barki wa Touba. mais yow lan nga ñuy may yow waa seen kàddu. non. amee looy dañu may ñu dara paré cakin gën dem dam gën da gën gën gën gën paré cakin gën gën gën gën pare cakin rodata dital gën gën gën gën gën cakin ngandal mu nan ngundal gën gën gën gën yow mam ngandal nga nan ngundal gën gën gën gën eh ngandal mu nan ngundal gën gën gën gën mama dafa xew bu beure daar moy yëngal mama dafa xew su beure daar moo yëngal yow eh xam ngeen ku ñu woo mama la ñu woo woo ngeen gor woo jàmbaar woo bete bete eh woo ku gërëm ak famem ak waa koñ bi. <laughs> loolu neex na loolu nice na. waaw le bad boy moo fi jaar la ah, le booy boy de Lamsar. borom 45 bees yi <laughs> mais ah, waxtaan bi neex na trop mais ñu bàyyi la nga tàggatoo xam dama leen gërëm yéen waa seen kaddu di leen sant di leen gërëm rafetlu naa seen seen affaire bi nice na trop wax dëgg yàlla kontaan naa trop trop trop te amoon naa mbégte toog ak yéen bu yàgg mais xëy na tey la suñu borom dogal quoi te en fan yi xam rek yow xam nga lépp sax nekk ci ay jafe-jafe xam nga nekk ci ay yëngu moo tax loolu rek a tax mais maa ngi sant bu baax di leen gërëm di gërëm suma waa koñ bu baax baax baax maa leen sant sant kontaan naa ci ñoom bu baax a baax a baax di gërëm sama gaay yi ñoom ñëpp parce que maama leen ba amee combat ñëpp ci sonn ku ci mel ni ku li fay dë am na combat maa ngi koy ñaanal yàlla yàlla na ko suñu borom may ndam suma xarit la suma rakk la suma lépp la papaam daf ko am ni ba ci man ni ma kii dénk naa la ko moo tax tey jii lu mu am rek dama ciy taxaw Balla Gaye Junior da doon jël soxna fan yi passé aussi ñu koy ñaanal yàlla yàlla na sëy bi barkeel yàlla na ci yàlla may ay doom yu njaboot yu barkeel ndax liggéey na ko kër baayam te ndeyam tamit liggéey na ko kër baayam te nag lépp lu ma koy mën a ñaanal mooy yàlla ko yàlla may ndam dafa am komba te combat am sama combat la may ñaan ñëpp ñëpp ñëpp ñu jàppaleel ma Balla Gaye Junior yàlla may ko ndam ak Coly Faye ak Jamso aussi mon ami mon frère papa bu yeso lol nak ma ngi gërëm wa Lamsaar bu baaxa baaxa baax suma papa père Alioune Diop ak père Moussa ak Madiaw ak Cheikh Diouf borom Gambi Ndiaga Dios Adama Diallo bu Fit xam nga ci suma gaay ay Abou ndiaze Fodé Abdou sek wa ma ngi leen di sant bu baaxa baaxa baax di leen gërëm di gërëm wa fas mbaw jamm gën ci kaa Mbao Fora xam nga wa Gétti gi Mandela ma leen ak wa mbedd bu mak wa guyga malen santu bu baax di len gërëm guy ga maa defal mention spéciale ak wa pharmacie Aïssa tablo khadim xam nga gaa yëpp maa sante sant dina gërëm contane na trop trop trop di gërëm suma xarit nak Baba As mo nami mo frère ma ngi koy nuyu bu baax baax ay jaraanga yu bari la yëkëti dima ko jox ngir lan contane bég gi ak suma ben xarit bo xamanteni ñu koy wax yeah, mom mi ngi ba italy xam nga mang koy sante ak kana mi nga xamanteni ni tax ñu xamante maa ngi leen di sante bu baax di gëreum Samba sek mon nami mon frère mang koy sante bu baax ñu mbéygee fay su njata jaay yépp leen di sante wa parce que nit nit du yow kessé ya mënal sa bop bu la ñi ñi wul da ngay ñe te mbind ci ben la tambalé mais kenn xamul fa muy yem moo tax nak maa ngi sante ñepp nuy ñepp di gëreum ñepp di gëreum madame sar di wax yalla nako yalla may ndam ci élection bi mu jëm Macky Sall ca kaw ca kanam CNG ca kaw ca kanam mbër yi waxtaan ak ñoom Sénégal jëm kanam. ok jaajëf loolu lañ leen indiloon ah ci seen kàddu ah mais ba beneen champion rek ok jaajëf. waa mais Baye Fall yi seen lutte Amadou Bamba Fall seen kàddu télé bi yëngal réew mi barki maam Serap Fall na ko ñëpp jàpp. jàppale leen parce que xam nga fii benn ngay tàmbalee waaye ba kenn xamul kenn xamul fa ngay yem te borom mbitigu mbagg mbagg boo gis magasin baa ne ci xol ba man nag maa ngi ci yéen maa ngi sunu kàddu de seen kàddu sunu kàddu waaw kon lépp kàddu <laughs>